kon ñoom la ñuy bàkkoo dañu koy bàkkoo nii rek waaye ci jëf ji amul dara loo xamante ni soppeeku na ci euh, gouvernance sobre et vertueuse bi nga xamante ni moom la ñuy wax ak itam euh, changement bi nga xamante ni moom lañu doon sàllool euh, dara amu ci mel na ni daal la woon fa woon Mamadou man de 1944 laa juddu mu ngi bëgg a yàgg 1953 54 si digg Ndakaaru gii maa ngi sànni xeer la Lamine Gueye parce que sama baay dafa doon jàppale Senghor Xabas gi ma commencé politique kon si moment yooyu politique ku xale euh, ba léegi génnuma si milieu politique euh, bi ñu waxee ne nanu dénk Sénégal ñi nga xam ne euh, ba ba leen di yàlla di àddina colonisateur newu fi mooy comme ñu juddu après 1960 man wax boobu xawoon na ma jaaxal un peu neexu moon loolu nag parce que dans une nation bu ñuy di def conflit de génération parce que bàyyi mooy yar doom mooy jàppale rak moo koy jox le témoin moom tam mu def loolu joxe le témoin euh, génération dañu war di jaxasoo génération dañuy jaxasoo kenn mënul xam lépp si jàng téere ubbi téere rek dafa ne xam nga lépp bés bu la jiit màttee si digg àll bi di nga xam ne téere du ko jàngale ka dox si àll bi tànku neen jiit ne ko paaj ne ko ciib dina xam ne kenn du ko jàng si téere kon ànd ak say mag ànd ak say nijaay ànd ak say baay ànd ak say rakk bokk ñoom jamono di jaxasoo ak ñoom mooy tax nga mën a yor luñ la mënti dénk bi nit ñi nee nag génération après indépendance ah yàlla def kenn eh, am si yar man day si li ma gis bopp muy Macky Sall moom yar eh, am teraanga yàlla jaaralewu ko aussi jaarale ko si loo xam ne mën nga yaakaar ne day am expérience mooy nekk na ministre nekkat ministre nekk premier ministre nekk président de l'Assemblée nationale bokk si parti ànd ak Abdoulaye Wade lu yàgg defa moom i campagne kooku mën nga yaakaar ne am na expérience am na ko sax am expérience su administration yëpp yaakaar naa ne am na ko wante toog si photo yi président de la république dafa laaj nga àndax ñi la mag ànd ak ñi la gën a féete ndaw ànd góor ñi ànd ak jigéen ñi ànd ak koo xam ne ute na ak yow parce que ñu dox yow ña ute ak yow nga war a wuti ñu bañ la sori boo naree juum ñu jàppale la wan la parce que euh, am na ay erreur ay njuumte yoo xam ne ci sama point de vue am na ay façon yoo xam ne kenn waratu ko yore Sénégal donc bu ñu dee ñu juddu après l'indépendance ñu ngi def loo xam ne <laughs> ñun ñu juddu avant avant indépendance. mais mais façon yi mooy yan. mais façon yi mooy lan d'abord euh, sur le plan politique boo waree biir dakaar fi mu nekk maa ngi gis benn photo photo président Macky Sall ak énergie solaire ay plaques solaires parce que dem na Sénégal oriental si benn dëkk ñu teg fa ay plaques solaires ñu commencé def ay photos si biir Sénégal yëpp naan. du solaire waxu doo waxu caaxaan la wax boobu xanaa moom comme comme moom mooy l'homme des autoroutes xanaa moom mooy l'homme de la santé xanaa moom mooy l'homme de la justice mais président il faut moom lu mu def kooku slogan la parce que benn euh, village bu ñu def énergie solaire du le Sénégal mooy def énergie solaire du Sénégal yëpp la ñu énergie solaire bu defoon Sénégal yëpp énergie solaire nag ma sant yàlla mais Amérique mënu ko France mënu ko Chine mënu ko Chine am na dëkk yoo xam ne boo fa demee tey sondeel la ñuy taal ba tey kon pour quoi ngay teg ay slogan si mbedd mi Macky Sall énergie solaire pour pourquoi ngay teg slogan si mbedd mi Macky sàll ngiy teeru kii ay photo bu dégg bëccëg suñuy biir dëkk kooku temps yu njëkk la woon temps wu léegi gis. mooy mooy seen temps yéen temps wu ak Abdou Diouf Euh, jamono ñu màgget ñooñu rek yab nit ñi ci ay car yóbbu leen aéroport ñu teeru ay yab yab leen si ay kaar ñu jóge aéroport di tàccu ba fii solo leen ay yére mais yooyu yëpp du politique bu baax boole si yeneen nax yeneen nax yeneen yeneen regarde